laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallaah faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah faal laa ilaaha illallaah laa la ilaha ilala la ilaha illala la ilaha ilala Cheikh Bayib góor yaa mat borom faal la ilala laa ilaaha illallaah ifal laa ilaaha illallaah yow de yaay baa bil ulum fal laa ilaaha ifal illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah bayib góor ñi yaa mat borom faal sëriñ Seex Faal bayib góor yow de yaay binu lom faal laa ilaaha illallaah laa yow de yaay baa bilu lum faal sëriñ Seex um Faal baayib góor yow de yaay baa bilu lum faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha ila la ifal la ilaha illa allah yow la yaay ba binu lom la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha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 doolay biir faal ak bite mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi am mbégte kontaante yi ñaanal xalifa général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal jàmbaari Cheikh Rafal ji tey di Serigne Cheikh euh, ki nga xam mooy Serigne Amdi Modou Mbenda Fall ak mboolem njaboot sëriñ Serigne euh, maam Cheikh Ibrahima gépp mbokk yi ñoo ngi fii tey nag ci kër Serigne Cheikh Ndigal Fall kër Serigne Cheikh Rokhaya moom Serigne Cheikh Fall Baye Góor moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñëw nag fekk ko fii ci kër gi ci Paleen ci fi nga xamante ni fi la ñuy toggee ndog yi nga xam ni yaakaar naa ndog cosaan la bi ñëwee itam ñu fekk fi mbooleem taalibe yi bàyyi ko ci ay gox yi fasantikoo niñ ko baaxoo defee at mu jot moo tax nag bi ñëwee kii nga xam ne mooy jëwriñu waañ wi ginnaaw bi ñu ñëwee ba ci sëñ ba pare ñu jox ko kàddu muy Serigne Mbaye bu Touba Fall jiite lépp lu jëm ci wàllu organisation ci kër sëñ bi waaye tam jiite waañu ndogu yi yaakaar naa ni kon kenn ku ne xam na taxawaayam ak pas-pasam digganteem ak sëriñ Seex Ndigal Fall moo tax nag euh, sëñ Mbay ginnaaw bu leen yooyu siyaar la pare bëggoon rek nga dikkal ñu ci waañ wi ba ngeen tàmbalee liggéey bi ak léegi ak wàccaay wa sax ba ci tey gi ngeen dugg ci weeru koor yi ba tey la juróom-ñetti fan ak liggéey bu am solo bi nga xam ni yéen a ngi koy amal fii ci kër sëriñ Seex Ndigal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu yéen bokk taalibe yi ñu ngi siyaar bu baax di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te di ñaanal sëriñ am ni mboonu mbenn mu yàgg fi loolu di ñaanal sëriñ Cheikh Ndigal Fall sama wasila mu yàgg fi loolu téwéer ak kullu euh, Baye Fall ndogu yi ngay gis ni ñu di ko togg nii maam Cheikh Ibrahima Fall ca la cosaanoo bi fa cosaanoo dañ ko yokk ndax bi bi naa lu lu yokkuwul baaxul looloo dal dañoo yokk ndogu yi kilifa yi taxaw nañ bu ma xëyee waañ wi ma nekk damay xëy sarse camion ba ngay seen ba mu fees nag yóbbu ko seeraas ñu contrôler ko xool ko ba mu sont ñu defar ko soxna yi ngay gis nag huit heures lañ fi nekk ñooy raxas ndawal gi ñooy taal cin ñoo koy togg ba mu ñor di saat di ñaanal nag sëriñ bu fi loolu tëwér ndax moom kat faal wàcc na ndax dañ ne ku yokkul yaa wàññi waaye nag ndokk faal yokku na ndax bay euh, maam Cheikh Fall maamam fukki bool ñaar la fi bàyyi woon waaye sëñ bi lim bu bari bu takku la fi ba amutu lim moom ndax moom bu xëyee bu ñu xëyee Euh, Moussa bu xëyee dañuy taal mbana di togg di yàq ba lim bi daal ma ko wax maam ci bool yi li muy toll fii amatul lim Cheikh Rafal fukki bool ak ñaar la ko bon waaye yokku na ba ko waaw. day liggéey boobu ndax bu yomb la ndax yaakaar naa ne liggéey gi ni ko war a defee liggéey bu jëm kër euh, Serigne Touba euh, bàyyi ko kër Cheikh Rafal yaakaar naa nan ngeen koy waajale ak itam organisation bi. a ah, musa loolu loolu mënta a yomb waaye nag sëñ bi ko weefal tooy ndax bokki taali bi nga xam ne ñoo fi nekk jàmbaar lañu surtout soxna yi ak góor yàlla yi ñi nga xam ñoom may àndat liggéey bi man sama bopp sax maa leen mag fuuf du sama mat mbaa du sama xam moo tax ñu jiital ma waaye wóor na Cheikh Ibrahima Fall ñu mu pas-pas ci liggéey bala ma na a soññ fekk nañu taxaw bala ma leen a soññ fekk nañu taxaw bëgg nu mu baaxee rek tey nag ku jëm ci yoon du ñàkk loo dog ñu ngi moytu paquet bu baax ndax ku lu baax da nga daje ku waaye nag ñu ngi moytu loolu. mag ñi ceeba ki eh, ceeba ki macaron la fi bàyyi waaye suñu lañ nekk suñu nii soos tufe rek ñamu tuba li gars yi wax ñamu tuba moo fi am soos ak mburu rek ba mu doy léegi romb nañ foofu soos ci nag buñ paree maam damay dajale bool yi bool yi eh, ci mbana gu ma yekk ba mu jeex ma jàll ci beneen mbana yekk ba mu mbana yi jeex maam pour nga lim bool sax problème la doon Moussa waaye yëpp nag tufe lay doon moom amul lan la ci rax duñ ci def macaroni duñ ci def vermicelle ndawal pomme soble loolu lañ ciy def ba mu yegg. bu ma defee ba pare soxna yi defar ndawal gi fii nii kenn ku ne day yor peeru gant gant ay gant la ñuy raxase ndawal bu raxasee ba noppi man maay jël bidon yi natt diwlin bi ma leen nattalee diwlin bi. mbana gu ne dafa joo xam dama ko fay teg mooy saytu mbana gi ba mu ñor soxna nday mbay mu sëñ Cheikh Modou mu sëñ Modou Moustapha Fall maam Saraye moom da koy ñam xorom ci mooy wër ci yëpp ñam xorom si ba jeex waaw noonu lañ koy liggéey waaw. kon euh, su ngeen jëppee fi nag yenu fa yéene dem ci kër sëñ Touba ga ak yoon weeg li ngeen fay jànkonteel ci léeg-léeg oto yeeg yu mel ni ki noonu ak ñi dul comprendre ni dañoo xam ni Serap moo jóg jëm kër Serigne Touba. ah loolu Moussa ñun mokkal nañ ko li tax ñu mokkal ko suñu kilifa noonu la mel. ñunu bana xasee yen yen ndog yi oto bu nu kar nu ngu waa dañ lay romb jàll nit ku nu gàllankoor dañ lay romb jàll loolu sëñ bi jàng nañ ko ndax lu jógee kër sëñ Touba lu jógee kër Cheikh Rafal jëm kër sëriñ Touba wër tamum ndog te yooyu yëpp ay ndog la te mënta ñàkk waaye lii ma la wax moom lañ jànkoonte ñu romb jàll rek waaw romb jàll rek dinaa la waxit mbir ndax cin yi dafa am nu mu demee cin dafa am ci loo xam ne sëriñ Cheikh Ndigal Fall cinam la ay soxnaa koy togg ci nu sëñ Mbacke Ngunda Fall jëwriñ ak i rakkam mu sëñ Ngunda Fall mu sëñ Modou Moussa am ci nun sëriñ Moustapha Ndiol mu sëriñ Cheikh Fall Baye Góor ak ay rakkam ak ay doomam ku mel ni ndigal kala ak Baye euh, ndigal ndigal Modou ndigal ak ndigal kala ak Góor mu sëriñ Cheikh Modou ci cin yooyu la ñu bokk ci li ci toppaat di ci nu sëñ Abdourahmane Fall cikki moom ak i rakkam ak taalibe ñoo bokk cin loolu ak waa kër sëñ Sadex Sadex Kan waa kaneen ñoo bokk ci loolu. ci li ci toppaat di daara ju mag ji max mun Mahmoud Thiam moom it magi taalibe yi ñoo moom cin yooyu moom cin yooyu ñoo koy saytu ñoom ñooy saytu ci loolu. ci li nga xam mooy toppaat mooy daara yu ñu xam ni ñun ñii yaa bintu jenn mu bàyyi jibi juuf si karkat moo yor cin loolu moo koy saytu waaw noonu la ci ñuy doxee waaw yaa jërëjëfati laa ilaaha illallaah faa laa ilaaha illallaah laa illallah ibal la ilaha ibal illallah la ilaha illallah yaga baax la ilaha ibal illallah ibal la ilaha إلا العبال لا إله إلا الله لا إله إبال إلا الله إبال يا جبال لا إله إلا الله إلا الله إبال لا إله إلا الله borom baax laa ilaha illa lay baal laa ilaha baal illa laa ilaha baal illa lay baal laa ilaha baal laa ilaha baal illa baal nu nde ndimal la lay ñaan yar ndew doole biir ak biir teew laa ilaaha illaal illallah ibaal laa ilaaha ibaal illallah laa baax laa ilaaha illallah ibaal laa ilaaha ibaal illallah laa laay laay baal illa laay baal laa ilaay baal illa laaw lii dug neenu yàlla laay baal burur neen baal di sooreew ndi maaluy baal yërmande yaw doole biir ak biiteew ndi maaluy baal yërmande yaw duule biir ak biir teew. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki jàkkaarloo ci dañuy seetaan moo xam ci biir réew mi bitim réew ci dañu bàyyi xel tam ci rajo bi muy Assalaamy TV ak Assalaamy FM ginnaaw nag bu ñu bàyyi koo ci waañ wi ànd ak njaboot ak Serigne Cheikh Fall Baye góor mu di Serigne Cheikh Ndigal Fall nekk ci bopp ba ñu yàlla guddal fanam yokk wéram. ba mbooleem ay naa naalama ki sumbam mu àggali ko defe ko nu kawe njottam waaye nag dégg nañ kàddu yi am solo yi nga xamante ni kàddu yi pas-pas la bàyyi ko ci jëwriñu waañ wi di Serigne Mbaye Guèye euh, bu Touba Fall kon nag dañoo ñëw toog kenn ci ñi nga xamante ni jëwriñu Serigne bi lañu di kenn ci njaboot ak Serigne Cheikh Fall Baye góor di Serigne Cheikh Mbacke Fall mu ñu duppee Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma yàlla na yàlla euh, yokk ko ca yàlla kàttanal ko ba li mu bëgg a liggéeyal Cheikh mu ànd koog magam ju tedd ji. nga xamante ni moo di Serigne euh, Cheikh Ndigal Fall euh, ginnaaw bu ñu ko nuyoo siyaar ko pare mu feggoog Serigne Talla Fall moom Serigne euh, <coughs> moom Serigne Cheikh Fall Baye Góor waaye tam ñu feggoog ki nga xam moo di Serigne Ahmadou Fall moom Serigne Cheikh Fall Baye Góor ak mbooleem njaboot gépp sëñ Gunda Fall moom tamit ñu ràññee taxawaayam ñu koy ndokkeel baax baax ak sëñ Ousseynou mbay moom itam di magum taalibe ñu yàgg moom xam ko taxawaayam ak pas-pasam ci biir kër sëñ bi ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Euh, kon nag euh, di ñaanal suñu wayjuru tedd wa Baye Amdi Kébé yàlla yokk ay leeram ca taasu ci barke bi ak mbooleem njaboot gépp wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo lañ fi daan am kon euh, sëñ Cheikh Mbacke ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la pare bëggoon na nga dikkal ñu ci ndogu yi fii ci kër Serigne Cheikh Fall Baye góor cosaan li yaakaar naa mooy cosaanu Cheikh Fall la rek waaye itam tàmbali Cheikh Moudou Moussa Fall jaar ci suñu jàmbaar ja di Serigne Cheikh Fall Baye góor ba ci ki nga xamante moo di Serigne Cheikh Ndigal Fall Serigne Cheikh Roqaya taxawaay ak pas bi nga xamante ni am nañ ko ci yokk ak yaatal li nga xam ne mooy liggéeyub Seera Fall bi jëm ci kër Seexul Xadim Xadim Rasul auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin eh, bin sante yàlla julli si yonent sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba di beetal sunu pas-pas si moom ak sunu yaakaar fii ak fa ñu ëllëg incha allahu rabbi di di beetal sunu taalibe Cheikh Ibrahima Fall parce ne takk bu baax ne si liggéey yi nga xam ne mag ñu ne koy bàyyi woon muy lu ñu batale ñu war koo sàmm ni sàmm bi nga xam ne dañ koo jox euh, ak jur jox ko yor ne ko demal nga sàmmi pas-pas boobu lan fas yéene yor topp ko suñu ginnaaw kilifa nag muy Serigne Cheikh Fall digal fas yéene lépp loo xam ne joxoñ euh, na ko ñu ñu fas ko jëfe te ànd kook moom euh, te am ci xel mu dal bu baax am ci yaakaar ju ju yaatu ci pas-pasam ndax li ma ko waxee moom su loolu la ne ndax ku xam seex Cheikh ndigal ba sama borom defee mu ni ndijaram ak càmmoñ ak tey jii si ndigal rek la ma si tënku moo moo ko jox tur woowu ndigalul waajuram ndigalul ndigalul sëñ Cax Gaynde Fatma ndigal sëñ Mbàkke Madina ndigal sëñ Mbàkke Soxna Lo sëñ Saaliwu ba si Moussa Ndiagne ba tey ji lépp lépp loo xam ne day jariñ ci ne si yoon wi tey taxa a am dara si yoon wi tey tam doon loo xam ne mag ñi koy bàyyi woon si loolu la tënk kon ñu ngi tënk si ginnaawam fas yéene ko ànd ak moom euh, li nga xam ne li ci dolli ko nag mooy li nga wax di léegi rek mooy cosaanu ndogu moom yomb naa xam ci Baye Fall ndax mooy cosaanul koor rek ndax koor lu fi yàgg la sama borom moo ñu ko digal mu mu jiitu mu jiitu sëñ bi ci saahir lu bari waaye bi sëriñ bi ñëwee euh, dafa am maanaam ni ko ni ko sama borom bëggee sëriñ Tuubaa moo ko daan defee noonu ak ak ak ni mu yar yàlla dogal nag ñu wax ne bi koor gi jub see moo waxoon Cheikh faal Fall ne ko damay am gan te bëgg nga teralal ma gan gi Cheikh si dégg taalibe ga moo waraloon mu xam ne lii la ko sëñ bi sant mu mu wax aw ñooñam na leen kat sëñ bi daa santaane ñu togg ay bernde si weeru koor yi daan ko togg di koy sëriñ bi ba sama borom dogal ñu ñoom ñu ñu ñu batale ko seen gaa yu baax yooyee mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ñu koy doxale noona ba ci sëñ Cheikh Fall ci cosaanu kër gi nag laa laa laay wax ndax yaatu na fii kër Baye Baye Fall fi mu dool nii ba ci sëñ Cheikh Fall Baye góor ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma ba ci sëñ Cheikh Ndigal mii tey ak sëñ Mbacke Somal ba ci sëñ Cheikh Ndigal am ko xale ak sëñ ba ci sëñ Ceex ak sëñ Moussa Ndiagne mi loola mooy cosaanu yoon wi yoon wi nag damay faral wax na la taxoon Cheikh Rafal jóg di wër sëriñ Touba ba gis ko Serigne mel nii mel ak yor lii mu yor lu mat a bàyyi xel la du caaxaan te lool li ko tax li ko li leen tax a jóg mooy murid yoo xam ne yàlla rek la tax a jóg nga xam ne seen i jëf ak seen i wax ak seen lépp ci yàlla lay dellu Serigne Touba murid yu mel rek la soxla murid yoo xam ne yàlla rek la tax a jóg mooy murid mooy murid Serigne yi nag. murid bu ne boo xam ne yaa ngi si bokk ci biir te meloo noonaat fexe yéene ne mel noona na nga na nga fexe maanaam bokk si murid yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy gëm yàlla bu wér ragal yàlla bu wér bëgg sëriñ Tuubaa bu wér sax sax ci li sëriñ bi digle bàyyi tere yi te sëriñ bi yaral leen loo nag ndax loolu dafa may dara ku mas a am dara rek maanaam maanaam ngërëm sëriñ Tuubaa la ko may ndax day faral wax na liggéeyal sëriñ Tuubaa mooy maye dara fi dool soxla si tedd si nekk nekk Poroxaan cool yi bari na ci lool waaye li wér mooy li ko may lim yor mooy liggéeyal sëñ Tuubaa soxna jaar li ko may lim yor mooy liggéeyal sëñ Tuubaa li muy doon doon waajur sëñ Tuubaa liggéey gi mu liggéeyal sëñ moo tax mu toll mu toll ndax moom rek dama yar jégal moom rek mm-hmm. xam ne dayoom ba mu yor liggéeyal sëñ Tuubaa ko may kon nag liggéeyal sëñ Tuubaa ci lépp nekk liggéey bii ñu yor fii tey liggéeyal sëñ Tuubaa la nañ ko fonk bu baax te xam ne dañu ko batale dañ lañ ñu batale lu wér la loo xam ne du fi caaxaan loo xam ne jar na lu ne jar na suñ bakkan jar na suñ lépp te Sëriñ Tuubaa nag li sëñ bi laa rek soo ko defee loo man mu defal mu loo loo loo loo mënut soo ko defal loo mënut nag mu defal lu jom kon nag nan fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa fas yéene sax ci ndigalu mag ñi fas yéene lan fi bàyyi woon ñu dundal ko bañ cee dellu ginnaaw ba su ëllëgee su ndaje ñoom du am gaaj du am kers loolu si tënk asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barako li jës naa bàyyi suñu seen bay mii magum taal moo xam ne yàgg na si yoon wi Euh, histoire bari mi si boppam su boobaa nag mu eggale ko tëgg eggale ñu yi nga xam ne moo des ci leen tëggoon rek jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax yow tamit di la gërëm yàgg nañoo xam sa pas-pas yàgg nañoo xam sa taalibe yàgg nañoo xam sa dogu takk sa laxasaay ci ginnaaw Serigne seex ndigal yaakaar naa di defarkat boo xamante ni ñëpp ràññee nañ la yàlla na yàlla kattan la doolu la tawféex ba naa leeg sumb yëpp nga àggale ko ci barkeb Serigne Touba ànd kook Serigne Cheikh Rokhaya kon Baye Ousseynou Mbaye la ñuy jox kàddu gi euh, moom mi nga xam magum taalibe la ci kër gi ci itam euh, yàgg ci ginnaaw sëriñ Cheikh Ndigal yàgg itam ci taxawaay bi yàgg ci organisation bi sëriñ Cheikh yàgg ñoo boole itam ay émission yoo xam daan nañ ko def ci rajo Touba Fall boobaak léegi euh, borom pas-pas la moom tamit kon ñu bàyyi ko rek mu mottali li nga xamante mooy kàddu yi taxawaay sëriñ Cheikh Ndigal ci ndogu yi ak itam magi taalibe yi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bokki muridullahi Baye Fall yi nga xam ni ñoo nekk fii tey ci kër sëñ Cheikh Fall Baye góor maa ngi nuyu sëriñ si di nuyu taalibe yi di nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi di nuyu mag ñi di nuyu ndaw ñi leen xamal ni cosaan li nga xam ne moom laa war na wax lépp nii ko sëñ Cheikh Mbacke waxe woon rek mënuma ma yokk dara mënu ma cee dindi dara itam ndax lépp dëgg la ndax ba fi kër gi toogee ba tey dëggu raw gi mu raw gi mu wax kenn mësu ko fe wax loolu mën naa ko seere a ah, sëñ Cheikh ndigal nag yàlla dogal na jamono yi mooy ja jëwriñu kër sëñ Cheikh Fall Baye góor te yàlla may na ko may gu rëy goo xam ne ki da liggéey ba ko waaye nanga xam ne nan la sëñ Saliou yónnee woon ci sëñ Cheikh ndigal wax ma ni ma gërëm na ko ne ma boo demee ne Cheikh ndigal feek mi ngi koy bëgg dana fi ne ngërëm loolee barki démb sëñ Cheikh Ndigal man mi maay waxta ndoom man mii la wax ni sëñ Talla fekke na ko sëñ Cheikh Mbacke man mit ta sàkk naa ci sama may bopp di ko ñaan yàlla ak sëñ Touba ak Cheikh Rafal na bokk ci ñifi fiy mujj ci waa kër sëñ Cheikh ni te man gàddu naa ko loolu nag la ko ko may mooy dégg ndigalam jox ko alalam jox ko baatam wàcce dara jaam man duma ma waxee ci xarit waxewuma ci bokk damaa wax ngir yàlla ak yonent bi ak rajo sëñ toog Cheikh Fall kon sëñ Cheikh yow itam yaag seen mag ak say rak ñëpp am nga seen ngërëm ndax ah, mboolem ñi say rek ñi ca gën a bari dégg naa ñu ni sëñ Cheikh Mbacké sama sëriñ ndax bu moo ko royee du ma juum doomi sëñ Cheikh Fall yi ñu bari wax nañ ko may dégg te wax loo leen ko dañ ko wax te yàlla tax sëñ bi nag moom. wax na ci kàllaamaam ay mu am seer yu bari mu ne sëñ mbake Mbacke maa ngi ñaan ci daraje sëñ Touba ak Cheikh Rafat daraje sëñ Cheikh Fall Baye Góor mi nu séq yàlla na ma ko fi yàlla bàyyil ndax bu ma ko fi bàyyilee li ma bëgg lépp dinaa ko am dégg nga kon nag sëñ Cheikh ku bëgg lu baax da roy loolu giñ naa ci daraje sëñ Touba sëñ Cheikh Ndigal la ko wax diggante ndaam ndaam ak moor ak ndaam ak si la ma ko waxee ñi nekk ci waxtu ba ñëpp ñu koy seere loola li la ko may ñii xool ndax la sëñ Cheikh Fall Baye góor waxoon ni seex miir dama yaakaar ni li mu gis ci man xanaa ñi mu bokkal dañ koo gisut ndekkoon ñu def ni moom loolu sëñ Cheikh Fall ko wax ñëpp di ko dégg ñu bari fekke nañ foog waxu ko benn yoon waaye sëñ loolu la sëñ Cheikh Fall waxoon sëñ Cheikh ndigal waxaat na ko sëñ Cheikh Mbacke mii loolu nag kon li am solo mooy doon taalibe rek samay dëgg jàng am alal ak ak bari bokk ak loolu lépp li fi may dara mooy doon taalibe rek. kon sëñ Cheikh ndigal ak sëñ Cheikh Mbacke ak seen i rakk ak ku leen ko yéene yàlla na ngeen fa yàgg te wér ci barke borom Tuubaa ak Seera Faal ndax tey jii sama wax daa fattu ku xam histoire la waaye ah, dafa mel ni damaa fattu dama ko tëyut lu yàlla def la na ngeen ma ko baal waaye mboolem rakk sëñ Cheikh Mbacke yi fi ne ak ñi di magam ñoom ñëpp jéem nu ñëw wut ndigalal sëñ Cheikh Faal sëñ Cheikh ndigal Faal. sëñ Cheikh Mbacke mi moom am na ko moom ndax sëñ bee ko wax ma dégg te man du seere lu ma xamul moom wa ma sahid naa ilaa bi ma naa wa naa ilaa bi ma xalim naa loolu duma ma seere lu ma xamul kon nag ah, nun taalibe yi ak doo ak ak doomi sëñ Cheikh Fall ak góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi nanu xool sëñ Cheikh Mbacke ni muy doxalee digg mag sëñ bi ñu di jéem a doxale ndax yàlla yéegal nu jàppal fa sam ja wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu la ilaha illa allah faal la ilaha illa allah faal la ilaha illa allah faal la ilaha illa allah faal la ilaha illa allah faal إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا لا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله